لأن أن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى وأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنس على الإنس والجن أن بعث فيهم عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ويرشدهم إلى سبيل النجاة والسعادة ويحذرهم من سبل الهلاك والشقاو نينا nañu xam ne xéewalu yàlla ci ñun lu bare la kenn mënu ko lim kenn mënu ko takk li nu yàlla sotti ci ay xéewal nee na kenn mënu ko lim kenn mënu koo takk ndax barewaay ba jéggi na dayoo waaye nee na xéewal gi gën a rëy ci li nu yàlla xéewale nee na mooy yónni gi mu yónni yonti yàlla muhammad ci nun nu gëm ko mooy xéew ñu gëm ko mooy xéewal gi gën a rëy ci xéewal yi nee na du doomu aadama kese waaye nit ak jinne yépp seen xéewal gi gën a rëy du alal ji du wér gu yaram gi du njaboot gi nee na mooy xam gi nu xam ne yàlla leen yónnee yonent nu gëm ko nee na mooy xéewal gi gën a rëy ci ñoom buñ ko xamee ak buñ ko xamul nee na mooy xaritam mooy ndawam mooy soppeem moom la tànn ci mbindeef yépp soppal ko boppam andi ko ngir mu buddee nu ci lëndëm yi yóbbu nu ci leer yi parce que ñun ñëpp ci lëndëm la ñu ne woon xamuñu woon yàlla xamunu yonent xamunu alquran waaye ci mbaaxu yàlla mu yónnee nu yonent mu ubbi sunuy xel ubbi sunu xol ba nu gëm yàlla gëm bés pénc gëm téere bi te di ko jëfe kooku moo nu guddee ci lëndëm yóbbu nu ci leer sallallahu alayhi wa sallam itam ngir mu teg nu ci yoonu mucc nee na ku tegewul ci yoonu lislaam tegewoo ci yoonu mucc mu teg ñu itam ci yoonu texe ku tegewul ci yoonu lislaam bi yonent andi nekkoo ci yoonu texe nee na mu soril ñu ci lépp luy yoon guy jural ñàkk texe mooy texe di soril ñu itam lépp luy jur alkande loo xam ne ku ca nekk alku looloy sabab nga gis mu naan la demal fii bul dem fii waxal lii bul wax lii lekkal lii bul lekk lii dila la jaarale ci muccu yi ak texe yi dila moytulo texe di ak alkande yi sallallahu alayhi wasallam sallam sunu borom mo dëggal wax joji ci alquran ne inna min athari ni'mati llahi ala annaas an yab'ath fihim rasulan min anfusihim bokk na ci njeexantalu xéewalu yàlla ci nun moy mu yónnee nu ndawam lo xamne mo ñëw di nu tek ci aw yoon neena ndaw li yàlla yónni nak mooy ndaw li nga xam ne moo ñëw di defar suñuy jikko di ñu buddee ci jikko yu suufe dina yóbbu ci jikko yi gën a kawe wax naa barki démb ne fi yenent fekk màkka keneen kuñ fa yónni woon ku dul moom mission bi doo ko réussir keneen ku fa demoon ku dul moom mission ba du réussir ndax sunu boroom moo taamu fi gën a jafe ci àddina mission wu yàlla dox fa fi gën a jafe ci àddina jële leen ci jikko bu suufe yóbbu leen ci jikko bu kawe màkkal ndax seen dëkk ña fa dëkk dañoo rëy dañoo rëy dañoo dëgër xol dëkku màkka soo gisee du ñu bay mbay barewu fa duñu bay dëkk ba xeer la ay montagne rekk bari na ay riches lool nag ay pétrole ak ay lu nekk waaye suuf sa du suufu mbay waaw suuf sa du suufu mbay ndax dafa dëgër na xeer yaag montagne ya meloon noonu la xolu ña fa nekk meloon ay nit yu dëgër fa nekkoon ay nit yu rëy fa nekkoon yonent dem fa xam ni fii lu fi waay jaay lu dul suufe mu lamb mu woo leen ci wàcce bopp waaye bokk na ci li ko may chance mu mën ko def yàlla da koo indi mu mëdd daraja yëpp gis nga bi yonent ñëwee ci jamono bokk na ci li tax mu dérangé woon ñu bare kenn tuddatul kenn daraja yëpp a daan te dañu daan tagg ay nit ci xam-xam ñii nekk ay woykat ñu siiw ci jamono am succès lool fu ñu dem ñu tere leen tagg leen yëkkati leen di leen yéem ña ca des alal ju bare tax nu siiwee jamono fu ñu dem ñu tagg leen yéem leen ña ca des askan ak juddu bu rëy fu ñu dem ñu tagg leen yéem leen ña ca des nag buur nekk buur mbaa doomu buur wala setu buur ah, yore lu bare ñu nawee la ko ña ca des xel mu rëy ku ñu doon si siiwal ci àddina di la ñee rek lii nga yoroon bi yonenti ñëwee li nu njëkk a nemmiku mooy ñëpp xiirtalu jublu ko te nekkagul yonent moo dàq ci lu yàlla bind ñi doon jaay taar ci dëkk bi ñëpp kenn xoolatu leen gën a siiw ci makka ña ñu daan coow ci dañoo bare bay rek kenn déggatu leen muhammad rek ngay dégg borom daraja yu kawe yi kenn gisatu leen foo dem ci makka ak li ko wër muhammad la ñuy kooku nekk màkk kooku nekk màkk di ko yéem di jaxle ci moom kenn tuddatul kenn kenn siiwatul daraja yëpp daanu daraja yëpp sippeeku na ña ca yàlla dimbali nu nangu ni yàlla dimbaliwul nag ñu ne loolu mënul nekk parce que ñoom seen daraja yi yonent fekkee leen du nu nangu mu faagaagal ko rek nii ci xale bu juddu barki démb sunu kanam ñu naan yàlla moo ko yónni te mag ñu ne fi di lim magi màkkkat naan diw ak xel ma na mu toll diw ak alal ja na mu toll diw ak daraja ja na mu toll ki atam ñu naan xale bi juddu bër ki démb nga xam ne lu mu lekk sax daf koy të ñu naan nu moo jógee ci yàlla mënul nekk ñoo ñaay ñu rëy ña nag waaye darajaam ak siiwaayam fu nekk nit di bàbbi ku du ñëw mais boo ñëwee li lay yéem ci moom la ngay dégg turam ci kawe ñaay boo ñëwee doo ko gis ndax suufeem mu jël daraja yi ko yàlla joxu siiwaay bu yëpp taxañ daraja ya sànni ci suuf ñu fekk ko léeg-léeg muy dox ak ay dàllu carax ñu fekk ko léeg-léeg mu war ci mbaam ci jamono boo xam ne ña ca nekk rus nañoo war ci fasu ngilamu wala jàkkeer ku warul naaru góor sax ci ñu suufi ñi nga bokk bu doon tey ci jamono nga ne am na ñoo xam ne duñu ñu yéeg ci kalandoo dañ ko rus duñu dugg car du ñu dugg tata parce que dañ jàpp ne <laughs> suufe na ci ñoom noonu la meloon ci ñoom waaw fu mu jëm rek nu topp ko wër ko ñu xëy seen ko mu war mbaam di doxantu jëm kër Seydina Ababacar lu kenn ñemewul a def ku am dara ji ci dëkk bi ñu xam ne nag kii ndekante daray àddina safu ko ak fi turam toll ak li koy xaar ñu koy fekk muy toog ak ay jaam te ñoom dañu amoon aadawu ku ñu tuddee jaam loolu ay caaxaan la ku ñu tuddee jaam rek perdre nga sa droit yépp lépp lu doomu aadama di am ci sañ-sañ ñàkk nga yow dañ lay classé ci bàyyi ma yi léegi mooy dañ lay liggéeyloo te doo sañ a bañ te doo lekkandoog nit ñi dañu lay xont ni ñuy baree xar noonu la ñuy beree jaam doo toog di toogandoo ak sa sang ci basan wala ci lal bu toogee ci basang ci suuf ngay toog bu toogee ci kaw suuf ngay toog doo lekkandoog moom da ngay xaar ba mu pare buy wax doo wax te bu lay xool dangay sëgg ñu seexlu ñi ñépp ñu ñëw séen ko muy toogandoog ñoom di lekkandoog moom ma te borom daraja yi nu yaakaar ba ëppal seen bopp lii ci moom la ñuy daw di làqu ji ñu fekk mu toog fii di nga toog ak ñoom par moo tax bare na ñu mujj di toog ak jaam moom moo tax ndax moom la ñuy toogal fekk mu ngi toog ak ñoom ñu seen ko ñu téye palaatu tendre ma ñaari jaam siq ka ne dañu dañu bëgg a waxtaan ak yonti yàlla Muhammad ñu invité ko mu ne dinaa ñëw dinaa ñëw jaam invité ko mu ne dinaa ñëw te loolu benn jaam sañu ko woon ci màkk kenn sañul woo sa sang kenn sañu Ken sañul won itam ñu fekk la ngay garam place ak ñoom mu dem fekki len fa ko invité ñu teg palaatu tàndarama muy waxtaan ak ñoom di jël ñuy jël ñuy lekkandoo ñu di ko nan li mënul nek moko ko ci mak moko ko ci mak ndax lan su wul won nonu mënul buddi nit ñi fa ñu ba défar len ndax xol mooy nit mais jëm du nit ta xol ba bu tojul ba noy ba leeru yàlla dugg ci biir jàmba du defaw mu mujj ñom ñëpp ñu nërmeel seeni daraja ci suuf sunu borom diko tag tagg naan ko fa bima rahmatin min allah linta lahu walaw kunta faddan xalida alqalbi lam fadu min xawlika sunu borom ne ko dey maa ngi lay maa lay tagg ci sa yërmande ju yaatu maa ngi lay tagg ci sa xol bu ubbeeku ndax yow sa yërmande ju yaatu moo tax nga mën a dékku waa Makka ba accepté li ñu lay def yépp ngir nga defar leer bi ma rahmatin min allahi linta dëgg la maa la tëpp yërmande waaye yërmande jooju sotti nga ko seen biir ba nu àttan la ba mën a consommer sa sa leer ولو كنت فظا قليظ القلب لم فدوا من حولكم منو كو بو ميلون ني نيوم تي قلب دغر اك ري دو نيو مسا كوريجيو دو نيو مسا كوريجيو موتاخ لولو بند لا بوي وانيني نيتو يالا بير ولا كو يالا باخي مو ورا جوبنتي دومو ادمه ورنا خامي برب يوي بو فا ديمي lan la lan la jam ñi yitte wo pour ñu dem ca yalla waye bu deme ba mandrga nitu yalla day nekk luxe ñiy defaru ñu bare parce que loolu li muy rëyal nit moo ëpp moo tax am na kook pour nga defar ko foog nga guddee ci luxe ba mu nekk ak rëy ga mu xam suufi suufi lu mooy lan parce que ci la sallallahu alayhi wa mission bii mu doxal parce que moom moo ne lu toll ni pepp suuf wala lu ko gën néew sax laa bëgg wax ku mu nekk ci sa xol ci rëy yenent nee na doo dugg aljanna kooku bu la bëggee sowe sa xol lay visé moo tax ku la dig ne dinaa la defar te munta defar sa xol nax na la mukk doomu aadama ku mu mën a àndal ci àddina mu dikk ak defaru te jéemul dara ci xolam nax na ko parce que xol mooy defaru lu jëmm ja bari pratique ci jaamu yàlla di woo di julli di saraxe te fekk xol ba tojul nooyul woyoful ba rëy génn ci moom moo julleem yaag koor yooyu yëpp safara la mu jëm yonent moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam moo tax foofu la mujj ak ñoom nee na mooy ndaw li nga xam ne moo ñu xamal xam-xam màkka yabuñu woon jàng xamuñu ko woon sax ci réew yi gënoon a tàrde ci wàllu njàng ci la bokkoon inna tilawata قد بقت وقد ظهرت والي الحراوه والى الفرس والسام دا فا بوكون سي ماندرغا يندون خامينا يوننتي ميغي نييو ولا نييونا سي موجو جامونو نجانغ باري مكه باسكو داونو جان يابو نيوكو وون كون ماندرغا لا وون سي يوننت ديك ريك سونو بوروم نيكو اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان إنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله عليه وسلم نينا مو تخيل ني اندون اك نيوم موي في مولين جيلي ليغي تي لندم يوبو لين تي لير نينا مو لين يار نينا مو تخ با سين بت تيغي كو تي ادينا تيغي تي يالا نينا غيسو ني وون لودول ادينا كيب يعني مو نيو ايتام يالا ديف كو كان واسع الصدر عظيم الصبر كبير الحلم كريم العشره كثير الحياء نبيل القصد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على سعاده الامه غايه الحرص كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم نانا نانا يننت يلا كباخي كو ياتو وون دن لا موي كو منونا اكسبت لا كو منونا ديجيري سيتياسيون صلى الله عليه وسلم نانا كو منونا موñ لا كو دغورون اك muñ في مو جار كي muñ دوما adama دو فا جار parce que nit mën nga ko attaquer verbalement sax léeg-léeg mu bàyyi la waaye koo xam ne toujours ñi di la agresser physiquement moralement ak verbalement xas xelam saaga ko dal ci kawam agressé ko te li ëpp li ñu koy def day fekk mi ngi julli xam nga ne kilifa gu taxaw di julli nga dem wuti mbaqu giléem gu ñu fees ba pare sibrit ma dem àll ya nga sotti ko ko parce que day julli day julli loolu ku mu doonoon ci ñun ku ñu ko def nga dagg julli gi defante ko ki la ko def soo daggul julli gi boo paree fu mu mën a nekk di nga ko wër te di nga fayu sallallahu alayhi wa sallam julli gi yëgul ne def nañ ko ko fi mu taxaw la taxaw soxna Fatima doomam moo mujj wuti siwo ndox fekk ko fi mu taxaw mu sotti ko ba sébrit bi yëpp wàcc mu continuer julleem sallallahu alayhi fekk nañ ko mu sëgg di julli ba mu bàyyi ba mu sujjóot mu jóg dëgg ci doqam taxaw ci kaw doq yonent mu teg jëwam yëngatuwul yëngatuwul mu di ko xool rek mu taxaw mu di ko seetaan sëgg sujjóotal yàlla seydna Ababakar radiyallahu anhu moom la yàlla tombele mu fekke mu ñëw bëmax ba ne ko yéen a bon war ngeen a wax kii lu mu leen def kii mësul wax lu ñaaw kii mësul fekke fu nuy defee lu ñaaw te yéen kii du ngeen ko wax lu mu leen delloo du ngeen ko jëf lu ñaaw lu mu leen di delloo lan mooy sababu jëf jii ngeen koy def lan mooy bàkkaaram waaw jël defendre waaye bu ca noppee du ca sax wax su paree rek ma nga ca leneen sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu muñam kenn attanu ko nee na ku amoon ak dënniir lu la di ko def lu mu mën a faj mu bir que ne lii mën na ko faj mu jëllale ko jëllale ko te mën na ko faj nee na itam ku bare woon kersal la sallallahu alayhi wa sallam daawul nangu di fixé nit di xoolanteeg moom ba yaramam di daaw daaw ko def li moo bare dara ji yëpp nee na bu ne indi nit ba xool ko nga xool ko rek day wàcce waat bëtam nene itam ku xër la woon ci texe xet wi waaw xëram ci xet wi taxon na heure bu waxe ak yàlla ben bar rek la koy wax ya rabbi ummati sama xet mba du nu lakk sama xet nan lañuy def ba mucc sallallahu alayhi wasallam te nee lolu sunu borom moko sédé ci alquran ci laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum xarisun aleykum bil muminin raufun rahim nu borom nee na maa ngi waat nu borom ay waat ci boppam de laqad nu borom nee na maa ngi waat ci sama mag sama tedd nga sa dëgg-dëgg yónnee naa leen ndaw loo xam ne azizun alayhi ma anitu dafay diis ci moom lépp lu leen di sonnal lépp lu ñu leen teg muy diis ci yéen rek da ngay yëg ne loolu day diis ci moom ndax xër gu mu xër ci yéen xarisun aleykum dafa xër ci yéen way gëm yi sunu borom ne ku leen yërëm la ku leen ñeewanti la te loolu cëru yàlla rek la rauf ak rahim yooyu ay turu yàlla la mais sunu borom abal na yonent melokaanam ak turam ngir jikkoom yu tedd yu yonent melowoo ci jikkoom yi ba yàlla solal ko ci mbubb yooyu sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom nee na itam laqad manna allahu ala almuminina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم خيول النالين بملين يوني نولو خمنة يتلو عليهم آياته ويزكيهم من لين دي جنجل تيرين بي دي سلل سيني جيكو دي لين خمال سو سوي خم خم يا تفك يينغي نكون تي أغرير سنو برام نينا من ما يوني نو جوخ جوب هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديني الحق ما جوخ ديني دك دي li yudhirahu ala diini kulli wa kafa billahi shahida doy naa yonent seede maa ko jox dëgg gi ne ko yóbbul ci jaam ni ngir nga dindee fa système ba fa nekk indi bu ko gën mooy lan système mu jikko yu suufe andi système jikko yu kawe te mooy fa mu fekk makka ci suufe ñaay ci jikko yéegal leen ci niveau bi gën a kawe ci yegg ci tey mën nga tëdd ci suuf si di bërëmu te doo ko yëg dem ba dignitaires yi nu gënoon a yéem ci màkka mën nañu xëy di doxee tànku neen te du ñu yëg ne tànku neen lañu def ñuy xëy di jaxasoog ay bilaal ak ñoo xam ne bu njëkk ñemewoo sax jaar fii ñu topp sa tànk tey nga toog ak ñoom ci benn jataay yeneen di waaraate nee na loolu sallallahu alayhi wa sallam moo ko liggéey ci jàmm moo tax nee na ñu ngi ñaanal jaafaru sadiq yal na yàlla gërëm ko discours ba mu defoon ca najashi keroog ba ñu jógee màkk dem ca xabasha ngir rawale seeni pas-pas ndax biñ demee ba mënatuñu dékku coono yi sallallahu alayhi dana leen dem leen rawale seen bopp ndax moom li ñu koy def mën na ko muñ te bu ko mënul woon muñit mënul génn parce que yàlla màkk la ko yónni waaw ah, waaye képp ku ànd ak moom ba nu xam ne yonent nga àndal sa bakkan lew na sa alal ak sa der bu ñu la dóoree da ngay perte bu ñu la reyee da ngay perte bu ñu nangoo sa alal da ngay perte loolu màkk yëpp d'accord nañ ci yonent nag mën na ko muñ parce que yàlla moo ko yónni mun ta déplacé mais yonent xool na saxaaba yi ba yàgg mu yërëm leen ci li ñuy daj ci coono di leen agressé physiquement ci lu tegewul fen te kenn mënu ci dara parce que dañ fa néew doole léeg-léeg ñu nangu seeni alal te du mujj fenn léeg-léeg ñu faat seeni bakkante moom moo tax parce que moom la ñu àndal mu xëy ne leen ku am barab boo mën a muccee dawal nga génn parce que fii suufu suufu tooñaange la maandute amu fi ku mën rawale sa pas-pas rawaleel sa pas-pas ne leen dégg naa Habasha muy Éthiopie tey buur ba fa nekk dégg naa ko maandu la ku am tolérance la nee nañu moom suufam du nangu ku fa noggatu ku néew doole parce que bokkook moom gis-gis ku mën dem foofu demal nga moo tax foofu la saxaaba yi njëkk a gàddaay dem toujours buñ ci yéegee ñu wax ni nit ku ñuul moo xamul boppam rek waaye kenn ëpp ko cër ci diine ji bi ñu tegee ndab li màkka mu kerek ba ñu rañaanee Afrique gii lañu ñu si Afrique gii lañu ñu si mu fat leen fat leen fat leen fat leen ba yàlla jox ndigal yonent ne ko gàddaayal madina foofa lañ jaaree dem fekki ko madina delluwaatuñu màkk benn benn yi dellu si na kës néew dañ demoon ba yàgg ñu dégg na daa mel ni kat léegi jàmmu am na ñu dellu si rek nu tàmbaliwaat ñu daw delluwaat toog fa te Najaashi mii recevoir leen amul lu waa màkka deful ngir jëlee waat fa ña fa nekk andiwaat leen màkka pour xalaat leen ñu dem fa làqu ji ñu yëg ne dem nañu fa ñu yónnee ay ndaw lu ñu am ci or ak jamaa ak xaalis sëf ci ay giléem ay ëmb ne leen dem leen jox ko Najaashi ngeen waxtaan ak moom ne ko mu jox ñu révisé ya fa nekk parce que ñooñu ay nit lañu yoo xam ne baaxuñu dañu tas Makka bu seetaanee ñu tas dëkkam nee ko mu delloo si waat ñu ak ñooñu ñu yeggee ba waxtaan ak moom Najaasi déglu leen daan ah nañu ko may nag mu déglu réfugié yi ba pare moom it ñu bàyyi ko mu toog mu woo leen ne leen ah seeni mbokk ñëw nañu fi de kalaame nañu leen de wax na ci yéen wax de wax nañ ma lii ak lii ak lii la ngeen fa nekkee ci saaga yàlla jàmbur yi ci jël alalu jàmbur ci wax lu mu xalaat ci lu ñaaw ñu wax ko nee nañu nag naa leen delloo waaye man dama leen di may bénéfice ma déglu leen ba noppi. ah ñoom ñëpp nu ànd ne jaafar ne jël sunu kàddu te bi ñuy ñëw yonent joxu leen benn discours waxu leen dara dem leen toog la leen wax waaye ci mbaaxu yàlla discours bi jaafar def bu yonent ñëwoon du ca dindi virgule nga xam ne loolu inspiration wu yàlla la jaafar ñëw taxaw te waaju ko jàkkaarloo jàkkaarloog najaashi ne ko ayyuhal malik ñun dey aw nit lañu woo xam ne ñi ngi dëkk Màkka juddoo fa yaroo fa xamuñu fudul foofu waaye nag natt bi nu amoon mooy ñun dañu daan jaamu xërëm bant lañu daan jaamu ñun ñépp amoon yàllaay bant comme ni ko suñuy baay suñuy maam amee woon dañu daan naan sàngara dañu daan njaaloo xamuñu woon àqu dëkkandoo ku man sa moroom duma alal buñ la dénk doo ca ràññee li nga moom ak li mu moom noo ko mënee rek nga lekkee ko daawuñu moytu ku néew doole buñ ko ëppee doole duma ko kenn ci ñun daal daawul jéem a rafetal jëme ci sa mbokk ku mën sa morom duma lañu daan dul ñu xëy rek am benn mbokk bu nekk sunu biir ku ñu xam nag juddoo ci màkk ñu xam ko mu màggee sunu kanam ñu xam ko xamuñ ci moom lu dul dëggu ak ñàkk caaxaan ak am jom fegu boppam kenn mësu koo dégg ci lu suufe kooku moo xëy na yàlla moo ko yónni mu ñëw guddee ñu ci jaamu xërëm leeral sunu bopp ne jaamu bant amul njëriñ mu leer sunu bopp ne jaamu xërëm amul njariñ nu bàyyi ko mu xamal ñu naan sàngara baaxul nu bàyyi ko mu xamal ñu sàcc alal baaxul nu bàyyi ko mu xamal ñu njaaloo baaxul nu bàyyi ko mu xamal ñu lor sa dëkkandoo baaxul ñu bàyyi ko mu xamal ñu dog sa mbokk baaxul ñu bàyyi ko mu xamal ñu tuur deret baaxul nu bàyyi ko mu xamal ñu lekk alalu jàmbur te lewu la baaxul nu bàyyi ko lépp lu ñu daan def ci lu ñaaw mu leeral suñu bopp luy wane ne lii du lu baax suñu xel nangu nu bàyyi ko dem topp ko ñu ne ñu lu tax ngeen di ko topp bu ñuy dem xërëm ya woonu nu ñu ne ñun demun nu mereñ bu ñuy naani sàngara woonu ñu ne ñun naanuñu ñu mereñ bu ñu bëggee sàcc wooñu ñu lank yenu daan ànd ak ñoom di def ci yu suufe lun ñu woowati ñu ne ñun demuñu ñu di ñu faagaagal di jël suñuy alal di tuur suñuy deret di faat suñuy bakkan te mënuñu riposter parce que dañu néew doole barewuñu fa moom Seydunaa Muhammad nenu yëg ne fii ci xabas ne ku maandu moo fi dëkk koo xam ne dafay aar ku néew doole buñ ko bëggee faagaagal mënuñu dem leen ngeen làqu foofu ba yàlla indi jamono li moy sunu sababu ñew fi waaye ñi sekku nag ñom dara ñu pare mu ne yeen la gëm li ngeen wax la xel nangu parce que ku leen xam nanu mel ak seen doole ju bare ak seenu chay chay ak minorité bu niwi nii bu ngeen leen avancer won ñu lek leen c'est parce que ñom ñoo leen di avancer yeenay daw lool la xel nangu daan ne wax nañ man ne man ak yeen da ngeen di ngagn suñu diine mom moom njabootu isa ma bokk na ci seeni wax da ngeen di saaga Isa di saaga soxna Maryam di saaga sunu diine loolu lu ngeen ci xam mu ne ko loolu du dëgg Jaafar ne ko loolu du dëgg ñun sunu diine wàcce na saaru alquran tuddee ko soxna Maryam di ci waxtaane di ci waxtaanee yonent yàlla Isa di wax ni mu ñëwee mu ne ko ndax mën nga ma ci wax dara mu ne ko aha kay mu tàmbali taril ko suratu Maryam laata laata muy xaaj rongañ yaa ngi tuuru ndax xam gi mu xam li waa ji di wax ci leer ak ci téere parce que loolu la gëm te loolu lay dund mu yëg ne virgule soppikuwul ci li mu xamoon ci diine yonte yàlla isa nee na bi mu siggee di ko xool sikkim baa ngi tooy xet ak i deret rongañ mu ne ko wallahi maa ngi lay waatal ci yàlla ni li nu namp ci yonte yàlla isa bi ma déggee ngay wax lu toll ni bant doxul digganteem ak li ngeen yor ne ko waaye na seen xel dal yéen duma leen joxe toog leen fii te di ngeen aaru nag ndax fii moom kenn du fi noggatu nit toog leen ba seen xel dal daan waa màkk seen yóbbal bi bare na baax na waaye gis nga li leen wër ci ay montagne ni mu toll nga ne ay montagnes yi kilomètres ngeen di yor bu ngeen ko soppi woon or ak jamaa indil ma ko ngir ma jox leen ñii duma leen ko jox sooy ngeen dellu leen waaw ñu dellu fa ak gàcce gu rëy kon xam nga ne mission wu yonent Afrique daf ci def liggéey bu rëy bala yonent gàddaay dem ca Madina parce que mbir ma dëgër na ba jéggi dayoo léegi nag ñu dem ba xam ne lépp jeex na ñu ne moom ci boppam lañ war a rey nag boobu la ko yàlla ne jeex na jógal nag saaga nañ la nga muñ jël sa alal nga muñ ñu agressé la physiquement nga muñ léegi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci réunion ka ne benn pexe moo ñu dese ci yonent nañ ko rey parce que yii ñuy def nii yëpp amul solo parce que ñun ñi ngi koy xeex affaire baa ngi gën a yokk waxuma yokk mais ma ngay law léegi Madina am na ko fa gëm habasha am nañu fa gëm affaire ba nga yokku di yaatu ci adina ki buñu sétané bo dolem dooleem wër dana ñëw faagaagal ñu boy bo ñu fray ne ko mom ci boppam lii tax ñu def réño ne nañu arrêté yonti yàlla muhammad ñu ray wa ajma al kullu lil itfa ma amilu bi anna dhalika nurullah bil qidam yàlla ne ko nak léegi jóg jotna jógal nga dem motax mu génn xaju guddii ànd ak seydna dox ba Madina ci lu ëpp 400 kilomètres mu dox ko une semaine waaw ak coono bu metti mook seen na Abubakar rek semaine yàlla ngay dox diggante màkk ba Madina ku ne xam ne ne tukki bu metti la. waaye ba mu yeggee Madina fekk ñu lalal ko tapis rouge ci misaal ñu gàttandu ko teeru ko ne ko li nga nekk màkk daf ñu yàgg metti parce que ñun dañu nàmp leer gi ñu yëpp ko xam ko ñu gis ni leen Makka di def mu metti nu nu bëggoon nga ñëw fii. waaw daal di ko dalal jox ko suuf ne ko ñaari terrain ngi mu ne da koy jënd du ko jël parce que mission la yore di dox ab Abubakar ñaari giléem yu mu yore ne ko waral benn ma war benn nu dem dana ko déedee danga may jaay benn bi parce que ci mission lañ nekk wax ma ñaata nga ko jëndee woon Seydina Abubakar ne ko temps laa ko jëndee mu fay ko ko ne ko waral benn ma war benn ñu yëgg Madina fa giléem ga góor ñaari terrain ya mu jëlaat ko nekk ñaari jiri ma ko moom ñuy waxtaan di xool nuñ ko ko mayee mu ne bàyyi leen ma jënd ko ba kër génn xaalisam jëndal ko fa la def jumaam ja tey fa la tëdd ca Madina te giléem gee marqué fi mu war a tëdd ëllëg ak fi jumaa ji di nekk mu ne leen fii giléem gi njëkk a toog mooy sama dal fee mu toogaat mooy sama xabru xoolal ku ne cëpp ci digg bi cëpp ci dëkk bi tey di lijjanti fi muy tëdd bu génnee àddina xam nga kooku àddina safu ko de bu ko àddina dong ñoroon bu ñëwee du lijjanti armelam laata ñuy samp kër gi lijjanti na armel bi nekk ak jumaa ji fan lay sampe sallallahu alaihi wasallam. sallam moo tax nee na mu toog ca madina nag yàlla dimbali ko mu yar fa gaañi ba waa màkk mujj daw dellu si fekk ka madina ndax li wolof naan am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax ku gën màkk dañu xaar ba ñàkk yonent bi mu génn seen biir amatuñu ku ñu dénk seen alal moom lañ ko daan dénk bi muy dem aliyun la fa bàyyi ne ko alal yin ma doon dénk bu nu ñëwee nga jox leen seen alal ma ne ko yaa waaye ku la menacé faat sa bakkan nga war a tukki tukki bi toll noonu fekk yaa ngi téye alalam boo meloon ni man danga koy yóbbaale mu ñàkk waaw mu ne ko toogal ku ñëw rek bind naa ñépp ku nekk jox ko la moom bu jeexee nga doog a ñëw ñetti fanu yàlla Seydina Aliyun toog na ko fa di joxe ndénkaane ñetti fan ku ñëw yaay diw dimu diw yaa moom lii diw diw diw yaa moom lii yaa moom lii yaa ba som yi jeex mu fekk ka fa ñu toog ab diir màkk lëndëm kuruus deret yi lewatul ñuy faat deret yi deret yi bakkan yi di tuur deret yi di jël alal yi kenn wóolootul kenn repère amatu fa ñëpp jaxle kenn xamatul kan mooy kan dëkk bi amatul kilifa kenn xamatul kan mooy lépp jaxasoo mujj gi ñuy daw di ko fekki Madina di tuubi xolal coono bi ñuy daj te boobu mu ngi seen taatu kër après lu ëpp 400 kilomètres ñu door daw nag di daw di tuubi wan mu nekk coono bu mettee métti waaye bi ñu ko xamee la mu leen jaral bi mu fiy nekk bu leen ko jaraloon du daj boobu coono moo tax réussir na mission boobu mu fexe ba Makka ak ma Madina yépp mu yilif ko def ko benn réew yilif ko doxal fa maandute jotal ko keroog bi muy génn àddina dafa taxaw ca Arafa xutbaam bu mujj mu xutba ba mu jeex mu ne ndax amul lu ngeen réere lu ngeen war laaj ci lu ngeen xamul na ko wallaahi suñ bopp yi leer na ubbeeku nañu amul lenn lu lëndëmati ci suñu dund ak suñu diine leeralal nga nu lépp mu ne ndax seede ngeen ne jotal naa message bi ñu ne ko wallaahi jotal nga message bi mu ne yàlla saa borom maa ngi lay ñaan nga seedeel ma ne jotal naa li nga ma yónni woon ci sa njaboot waaw ñëpp na wallaahi jotal na wallaahi jotal na mu ne ndax amaan na amaan na lu romb at mii dootuñu daje. te noonu la demee laata déwén di jot ñaari weer képp lan ca teg mu génn àddina sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla yokk ay leeram yàlla tëbbuñu ca leeram yu kawe ya ñu bokk ci soppeem yi ko sopp sopp bu dëgg cofeel gu dëgg rek moo jafe waaye ku ko yàlla may ci moom may na la lépp yàlla ñu ci yàlla xiir salaamu wa rahmatullah